Je vous en prie, oui, merci. Comme nous, Koumagawa Sek, voix d'or 86, Koumagawa 18 d'or, Koumagawa Sek, disque en platine. Euh, long trajet boobu nga def mu bëri aussi tamit sa yeneen euh, ñi nga xam ne daanaka yéen a tolloo même génération mooy on peut citer Youssou Madjiguène Ndour mi nga xam ne aussi tamit am na disque d'or, disque en platine, euh, Baba Maal am na disque d'or. ñeneen ñi nga xam ne nouvelle génération yi ñooñu wër nañu gis bu doon ba léegi mënuñu atteindre mënuñu yegg au sommet est ce que jotul yéen ñi nga xam ne yéen ma yi jiitu ngeen wan leen yoon bu ñu def ba ñu am gis bu doon gis en pratique même gis en diamant. sama deuxième question. Euh, bëri na date yi nga xam ne nemmeeku nañ ko le 7 décembre am na ay say naataangoo artistes yi nga xam ne ñoo ngi koy tëgg gis nañu Coumba Gawlo Seck dem na seeti ji. Euh, les grands comme Youssouma Djidelo comme Babaman et autres ndax aussi tamit bàyyi nga xel ñi nga xam ne ñooy nouvelle génération bi nga dem seetlu ñu leen waxtaan ak ñoom ci bés bi nga xam ne yaa ngi koy jëmal euh, merci beaucoup pour sa première question li may wax rek mooy xam nga am disque d'or c'est pas une fin en soi. Un artiste ne doit pas travailler en je vais travailler pour avoir coûte que coûte un disque d'or. Un disque d'or, c'est une récompense. Récompense de rek quoi. Voilà, récompense parce que jaay nga disque yu bëri c'est pas minimisé parce que jaay la disque yu bëri bokk nga ci ñi nga xamante ni ñuy ràññee nañ ci àddina ndax seen talent ndax seen musique ndax seen ay disque yu bëri yu ñu jaay ci benn système boo xamante ni nii mooy wane ñi nga xamante ni nii vraiment ñoo gën a ràññeeku ci li ñuy déglu ak li ñuy jaay ak li ñuy euh, comment dirais-je li mais je pense que li ëpp solo rek ci artiste mooy liggéey pour fexe am benn euh, longévité dans la carrière parce que longévité ci carrière dafa am solo ak constance voilà parce que nit war nga flat après kenn déggatu la ñu ne kan lan la artiste bi di devenir ana artiste bi kenn déggatu la mais li am solo ci artiste carrière mooy longévité bi ak constance bi voilà que l'artiste soit là pendant longues années mais aussi dans la constance, dans la constance, dans son sérieux, dans son professionnalisme, dans son travail, dans son talent. defe naa loolu nekk na loo xamante ni nii moo am solo loolu il faut artistes yi fexe liggéey ci loolu ñu li ñuy wax effet boule de neige effet boule de neige mooy diw génn na rek xaar ma gaaw génne man parce qu'il faut comprendre que carrière artiste dafay def nii day am ay haut et ay bas am na moment yoo xam ne da ngay génne am moment yoo xam ne tu souffles tu respires tu t'enfermes nga composer nga créer nga nekk dans la solitude dans la réflexion bu boobaa ñeneen di génne donc bu boobaa yaa ngi liggéey c'est pas que da nga tëdd di nelaw mais c'est parce que da nga liggéey donc il faut artiste yi comprendre loolu parce que mooy luwaawu showbiz mais pas ni damay daw rek man maa ngi daw wut fii disque d'or maa ngi daw non non faut ñu xam ko pour garder crédibilité bi c'est très important euh, pour cette deuxième question nag defe naa ni xale yooyu ci jeune génération bi man seen yaay laa ñoom ñoo war a ñëw seet si man maay dem di leen au contraire <laughs> ñoom ñoo war a ñëw ñëw seet seen yaay koy def d'ailleurs ñu ñëw ma baaxe leen sama xam-xam baaxe leen sama expertise baaxe leen sama expérience ñu reposer ci ñu am humilité ñu jàng parce que faut xale yi jàng voilà xale yi dañu nangootul jàng te seen xol tojatul léegi pour jàng moo tax ngay gis ñu sénégalais artistes yu bëri bëri bëri bëri bëri mais kenn génnu ci Sénégal kenn génnu ci Afrique kenn defu ci carrière internationale TikTok la ñuy yam euh, internet réseaux sociaux nekk waykatu YouTube naan am naa nangami vue am naa il faut refuser d'être un artiste de YouTube il faut éviter d'être un artiste des réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est très important Mais il faut pas être paresseux, il faut travailler, il faut être sérieux, il faut avoir une constance et plan de carrière. Voilà, loolu c'est très important mooy chaque jour dama ciy insister parce que je me dis xale yi xëy na comprendre luy carrière quoi voilà alors que métier carrière métier la et exigence la voilà. merci beaucoup Mané Mané merci. ah asalaamaaleykum mbooloo mi ci seen teewaay taskatu xabaar yi kilifa aada yi mbokk yi xarit yi artiste musicien yi soppe ak képp ku fi teew ak influenceur yi ku ci nekk maa ngi lay jox sa wàccuwaay di la sant bu baax di la gërëm gërëm lu amul ak benn yoon ñeent fukki at yi nga xamante ni moom laa door sa métier bi nekk na ñeent fukki at yoo xamante ni yombul ñeent fukki la am naa ci mbégte am naa ci bànneex am naa ci yët ay défi yu bëri yoo xamante ni relevé naa ko ci gannaaw ba ma samay waajur jàppale ba ma amee juróom-ñaari at la ma sama yaay Adja Fatou Kiné Baye yóbbu buy dem ci ngénte yi may ànd ak moom buy way ma koy aaw léeg-léeg buy way may tëgg ci bool bi man naa ne man maa nekkoon ak tëgg ko sabaram sama papa laay Bamba Seck daal di may terte moom it di ma bindal ay way yi nga xamante ne nii ñoom laay way ba ma amee fukki at ak ñeent ma daal di jël prix bii nga xamante ne nii mooy prix Chanvoix d'or 86 mu di concours bu ñu organisé woon dajale xale yi nga xam ne yëpp ñoo nekk Sénégal te amoon at yi ma am neuf régions région Sénégal yi ku ci nekk représenté mu am quart de finale demi-finale ak finale suñu borom ci kàttanam def benn bu ci dem rek man maa jël raw gàddu ga nekk pay bi ba ni ma demee ba ci théâtre national dañuy Sorano daal di jël man li moo waral voix d'or 86 bi may dàkkantalee ci noonu it laa continuer sama ay concours yu bari yoo xamante ne ni am naa fa ay ndam muy biddéew ñu organisé woon ko Sénégal ak it ay concours la ci biir Sénégal ak ci ba fi ma toll tey 1998 ma génne album yoo xam ne ñu ràññee ci way bii di pata pata ma am ci disque d'or am ci disque ma fa jógee dem Afrique du Sud à Helsinki au Cora Awards naka noonu ñu ràññee ma fa jox ma fa ndawlu waykat bu jigéen bi nga xamante ne nii moom lañu gën a am yaakaar ci Afrique at ma ca toppaat ma demaat Kora Awards jël fa trophée wu waykat bu bi gën a siiw ci Afrique gën a ci Afrique en 2000 demaa ko fi gën a wutee et Youssou Ndour au Kora Awards ay mbégte waaye tamit ay tolof tolof ba 2021 ba 2023 feebar dab na ma mu metti woon lool yàlla nag dimbali ma ma mën koo nettali tey bari waajal programme fukki at bu carrière fii ci Dakar ci esplanade bu biir Grand Théâtre di ñaanal suñu mbokk yi di ñaanal suñu mbokk yi ko fekke woon Aziz Dabala ak Samba Mbaalo bu Gelongal ndax nekkoon nañu ñoo xam ne ñu ma jege woon te ñu ci man lañu te mënoon a sonn ci sama métier bi nga xamante ni moom laay def muy bisu ma di leen gërëm sant di leen jox dig daje nag fii ci esplanade grand théâtre ci weeru décembre le 7 décembre ci biir 40 ans de carrière yi ñuy célébré 14 décembre ñu jëm Bambou village hôtel 21 décembre ñu jëm Maroc théâtre Mohamed V 25 décembre Noël enfant du programme ndaw ñuy faral di def ak mu jot 28 décembre Côte d'Ivoire palais e e de la culture enfin 31 décembre nekk final bi nga xamante ni moom la bëgg a tëjee ci atum suñu borom festivité yi fii ci Sénégal en attendant 2025 ma di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay seen taxawaay ak seen disponibilité jërëjëf merci beaucoup la Ligue nationale de va passer à la série des questions-réponses entre les journalistes et la Liga Mbabawase. présentez média. Namou. Bon. Bonsoir à tout Diva. Euh, maa ngi leen di nuyu di la ziar di euh, la encourager. ci carrière bi nga xam ne jot nga ko jot pas du tout évident 40 ans c' pas 40 jours ni 40 mois donc on vous encourage euh, vraiment et on vous félicite aussi ci carrière bu set bi nga xam ne mën nañ la ko accordé mais def nga ko parce que buñ a la diva à la voix d'or duñ ci teg leneen lu nga ne day gàtt gàtt wala day indi leneen donc on vous félicite euh, vraiment et du euh, j'ai deux questions à vous poser donc damay ñëw ci titre single bi nga xam ne génne nga ko il y a juste pour moi ñu ko réalisé di Gelongal kii di Gelongal di bàcc donc fi may njëkkee ñëw déjà damay ñëw ci titre bi toog toog toog euh, pourquoi toog toog toog ak initiative boo ko toog toog toog wala moo ko daal di indi. sa euh, sa relation ak ñi nga xam ne moom di groupe ak Guelobane rawatina bàcc na ko yàlla yërëm ak euh, relation particulière bi nga xam ne amoon nañ ko tey bu la laajtoo kan mooy bàcc lan nga la dernière question mooy que ni euh, da xam ne moom moo di les de votre carrière kii di 40 xam ne du lu ndaw comme ni ñu ko

donc euh, mën naa ne raison yi mu doon toog toog toog d'abord mooy dañu bëggoon benn titre bu simple pour euh, cette chanson bi nga xamante ni nii moom laa def ndax boo dee xool ci biir way bi à la fin maa ngi naan tuddee am live maanaam tey maa ngi dund dekki naa deewuma je suis en vie voilà donc mën naa ne message la boo xamante ni nii c'était vraiment un message pour euh, sant yàlla wax ni que maa ngi en vie et que voilà am live donc en quelque sorte mais bu loolu wéyee ñu soxla woon vraiment titre la mais aussi wax sama fas yi ni maa ngi fëgg bunt bi que dugg naa je suis bien là euh, ci sama à tous mes fans euh, nga xamante ma support yàgg ma namm donc loolu yëpp moo wundu vraiment euh, toog toog toog ak it message bi wane rek waxit ne li woon waniwul ndax boo xool ci morceau bi maa naan xolu fals yi ba tey benn la te lii prouvé na ko euh, ba tey maayit bi benn la micro bi ak li ma ciy way benn la ba tey euh, vibration yi benn la ak it motivation bi lépp benn la kon li fi nekkoon dara jógu fi voilà benn année moo amoon rek waaye ki fi nekkoon moo fi nekk ba léegi au contraire suñu borom sax dafa gën a yokk mën la scène dama opté pour beneen type de style musical voilà benn musique boo xamante ni certes am na mbalax mais pour euh, am plus d'ouverture pense pas que avant defoo ko woon ndax Angleterre waaye boo ko dee xool bokk na ci monde déclaré par iTunes mais dama xool paysage musical sénégalais avec les gelongal Samba Moussa Samba Peasona ñu wax ne dañu bëggoon joxe un nouveau souffle à la musique sénégalaise parce que su may déglu musique sénégalaise damay déglu les mêmes choses di gis les mêmes choses et on avait envie de donner nouveau souffle la musique sénégalaise pour ñu xam musique sénégalaise mën nañ exporter donc loolu moo waraloon yi passé bi yëpp xam nga ñu indi beneen esprit de musique beneen esprit de rythme et puis gën a sama voix beneen valorisation bu ñu koy gën a jox parce que am naa quand même yenn capacité vocale yi loolu nekk benn aspect beneen aspect bi it vraiment euh, di euh, euh, li nga ni nii defe naa mooy beneen question bi nga posé voilà sama relation avec Samba vraiment dafa nekk loo xamante ni man bu ma koy wax bu ma fi jugee parce que relation de euh, c'est une relation très très très profonde parce que Samba Mballo mooy ki nga xam ni man mun naa mun na ma déglu ay heures et des heures et des heures may wax sans jamais mu lasser wu parce que généralement Euh, chez nous en Afrique xamuñu mënuñu gérer artiste mënuñu gérer star mënuñu gérer artiste artiste mënul nekk comme ñëpp kon dootu nekk artiste voilà parce artiste dafa am sensibilité am ay souffrance am ay douleur am ay naqar donc il faut aussi di ko jéem assister di ko jéem a accompagner généralement on ne nous écoute pas toujours voilà bu ñuy déglu comme ku mel ni man nag moom da ngay nekk jom bi ngay jiital toujours ba fragilité yi vulnérabilité yi doo ko bëgg a wane avec Samba j'avais cette chance enfin de quelqu'un qui m'écoutait quoi voilà avec Samba Ba moom dama amoon chance bu may déglu nga xam ne des heures et des heures man dama déglu comprendre la su ma xoolee rek xam na lan lay xalaat et puis sama ay folie artistique ñoom dañ koy comprendre tey jii ma ñëwoon ne ko écoute man dama bëgg a def clip boo xam ne damay ay air di naaw di ñëw lu yemu reetaan du reetaan quoi dafay comprendre nag benn écoute on va aller dans les airs pour qu'il n'y ait pas que pour que ak quelqu'un d'autre boo xam ne dañuy kii kii dafa doon loolu la ñuy wax <laughs> parce que niveau yi ñoo bokkul voilà parce que gis-gis yi ñoo bokkul donc vraiment defe naa ni. avec Samba, avec des frères Gallogal de toutes les façons, mais Samba mooy Moussa relation yi ñu amoon c'était vraiment et ce sont toujours puisque Moussa est là des relations yu profondes yu sincères yu des relations de famille très très famille ak euh, de solidarité on se serre les coudes on se parle on se soutient on s'aime et c'est un amour sincère vraiment donc defe naa ni loolu moo nekkoon si ñaari question Question le 7. Voilà, la, la, question, le 7, nag moom vraiment dinañu def spectacle bu extraordinaire ndax man ku ma xam-xam ma spectacle te man su may xoolee scène internationale damay gis ne ñun amul audace pourtant ñoo ëpp talent sax ñeneen ñi xëy na bi wala ñenn ñi wala mën a pousser rêve bi xëy moo fi manqué. moo tax loolu lépp nag laa bëgg incha allah le 7 décembre c' est pas le 7 tout long voilà des 40 de carrière moom la ñu fas yéene wane pour ñu gis ko en musique en scène en harmonie en mise en scène incha allah du yomb ah avec tous les invités incha allah merci. bonsoir Kounda. bonsoir je vous entre euh, votre ak votre vraiment c'est extraordinaire ma question est euh, que da nga def euh, sa discours yëpp répondre d'autres questions mais est-ce qu'il y a des artistes invités oui on a des artistes invités effectivement vous avez vu les annonces gis ngeen ni vraiment tous les tous les artistes sont mobilisés que ça soit des artistes du Sénégal ak yeneen artistes et autres déjà pour euh, je sais que Baba Melon qui fait partie de mes invités qui puis il y en a je préfère garder surprise bi yéen a ngi gis annonce yi ah et puis y a parce que 40 ans yaa fête dañu bëgg mu nekk loo xamante ni fête nationale fête musicale de la musique sénégalaise de la musique africaine ndax quand même boo dee xool ci sama parcours am naa chance bu extraordinaire mooy je suis une artiste panafricaine j'ai fait le tour du monde j'ai fait le tour de l'Afrique donc fépp fu ma dem noué naa ay partenariat ay duo ay amitié avec des artistes donc loolu nag dañu bëgg vraiment que tous les artistes se retrouvent pour ñu fêter ko pour ñu célébrer ko incha allah. Euh, bonsoir à tous et tous, je m'appelle Fatouma, journaliste culturelle à Rewmi Quotidien. Tout d'abord, tata Kumba Gawlo parce que vous me lâchez ma mère, donc avec tout le respect que je Mes sincères félicitations pour, sa, pour année de carrière. Donc, max d'applaudissements pour je vous en prie. Gratulerer au mais c'est pas facile. Parce qu'il y en a qui fêtent leur quarantaine euh, année de carrière dans la musique, mais on voit rarement leurs albums. Mais on peut dire euh, que c'est pas votre L'inspiration est toujours là. Euh, le talent est toujours là, la voix est toujours là. Donc pour ça, je veux félicite très, très, très sincèrement. Voilà. Moi, j'ai deux, juste deux questions à vous poser. La première est que la grande diva Koumbagaolo vient de fêter ses 40 ans de carrière. Et on voit que la scène musicale a, comment dire, a accueilli de jeunes talents. Nous avons de jeunes musiciens, artistes, que ce soit masculins ou bien féminins, qui sont là, mais malheureusement qui s'arrêtent en cours de route. je dois dire, soit l'inspiration n'est plus là, ou n'ont pas les moyens de percer dans, la musique, ou bien ils n'ont pas les moyens de, payer une production dans un, soit ou bien un beatmaker, pour avoir ne serait-ce je voulais savoir si Kubagawa, dans vos, dans vos vous avez un projet pour aider ces artistes, les jeunes talents, à pouvoir se développer parce qu'ils ont du mal avec C'est la première question. La deuxième question est que les tournées, on voit que vous n'en faites pratiquement plus. Donc, je voudrais savoir, dans l'avenir, est-ce que vous projetez de reprendre les tournées à l'international, pas seulement en Afrique, mais dans le monde, parce qu'après tout, Koubagaoula est demandé dans le monde, pas seulement en Afrique, mais aussi partout dans le monde, que ce soit même dans les pays européens ou encore en Asie. Euh, la vidéo qu'on a vue tout à l'heure l'a clairement démontré dans votre euh, spectacle qu'on a vu dans beaucoup de lieux en France même je dirais, bien encore dans d'autres pays. Donc j'aimerais juste savoir, est-ce que Magallo a des projets d'avenir pour les à vous. Merci. Merci. Attendez, la diva de la porte. OK. Et demandez peut-être aussi le dans la salle. et peut-être installer nos barrages on va lever demander le ah silence dans la salle Mané merci alors merci euh, euh, notre journaliste de Rewmi c'est ça Fatou Ba Fatou Ba non non non